tafsir fan yii yëpp ñu ngi doon waxtaanee kiñaan iñaan nag boo iñaanee nit ndax loolu def defu suñu borom la subhanahu wa taala koo iñaane rek yàlla ne man nga attaqué guerre mm-hmm. ndax man yàlla man la neex ma defal ko lu ma neex comme nag man nga attaqué guerre yow boo paree rek defarul mm-hmm. nangu ndogalu yàlla mm-hmm. cër la nangu ndogalu yàlla mooy baax boo nangoo ndogalu yàlla ci sa biir xol nga seedeel ko jëmm ji te yàlla rek tax ah bu boobaa nag bokk nga ci jullit piir yi te tafsir il faut que ñu delloo si waat xel yi comme nag waxtaane nañu iñaan il faut que ñu waxtaane lan mooy contraire u iñaan mooy nangu ndogalu yàlla tafsir bu ñu xamoon nag ni ndekete yàlla pare na ba tey soog a ñëw ndax yàlla laata mo bind mindeef yek nek teef yi khalima dogal gi le bind ba nopi ne khalima gi bindal samay nam nam ak samay dogal ba lépp tere fi man ma dess rek di yàlla khalima gi ne ko yàlla lolou numa koy defé mu ko yow djublul rek lañ la sante khalima gi djublu yàlla la lawhil mahfuz yàlla bind namm nammam yëpp li mu namm ci doomu aadama ak li mu dogal yàlla bind na ni temps de at ngay dund tant de mètre cube ndox ngay naan tant de pepp dugub ngay lekk tant de pepp ceeb ngay lekk lii ngay dund ci sa àddina yëpp yàlla pare na ko démb tey soog a ñëw moo tax وخكات بني يونت بي الله عليه وسلم نينا واجو جيغا خامتيني موم لا نيو وخ عباده ابن سامت مو صلو حديث تيم دومم نيكو دوم بوي مونيكو لبيك مونيكو ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ماذا اكتب يا رب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ماذا أكتب يا رب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة من يلا لا تبو moo bind bindee fi ak ñëkkatee fi xalima dogal gi la ne xalima gi bindal samay namm-namm ak samay dogal ba lépp teeri fi man ma des rek di yàlla xalima gi ne ko yàlla loolu naka laa koy defee mu ne ko jublul mu jublu yàlla bind lawxul mahfuz bind ci mbooleem li nga xamante ni moom la bëgg moom la namm moo tax gis nga kenn deful kenn dara nañu bàyyi xel ni ñun ñëpp ñu ngi ci yàlla lu waay def rek boppam boo baaxee sa bopp soo amee safaan sa bopp bo iñane nit sa bop nga yakal bo soxaree nit di jëf ya nga teural ay pexe yaakar nga ni am nga ndam xolal mujj gi rek kon nak xana dekk wax deug yàlla bo bugg wax ma sax yakal nit ki waye nak nit du yakal bopam kon nak nañu xolaat suñu xol tafsir abdourahman lan nga ñuy indil ci nangu ndogal suñu borom subhanahu sharif ma sha allah alhamdulillah rabbil alamin xana rek sa waxi maam sayyid alhaj malik radiyallahu taala anhu ala farda ما يقضي الإله بملكه ففيه رضاما بالمطيع يثيبه وما يفعل الهادي الجليل بخلقه فذاك جميل يرتضيه منيبه يعني يلا في الممسل الحج مالك رضي الله تعالى عنه شريف نجوون تي كنيان لكي فج لولو دي فج كنيان موم غتي بوالي نونو موي رضا نانغو دوغالو يالله سبحانه وتعالى بو نيو كو نانغو رك خنا خمو تشاولي تشاولي موي ليغا واخ mooy yàlla dogal ci mbir ci nit te yow loola yàlla dogal ci nit daa kooroo ca la moo tax sama Seydi Hadji Malick di alaa dama ni farda gërëmal nangul maa yaqdil ilaahu bi mulki lépp lu yàlla dogal ci nguuram gi rek nangu ko ndaxte manoo ci dara lu yàlla dogal nangu ko yaa ngi xëccoo ak nit ñu ngi ñu ngi bëgg dugg ci ay élection léegi ñu dugg ci campagne bi yàlla dogal na yaa ngi xëccoo ak nit yàlla dogal na moom fal nañ ko yow faluñu la nangul ba xëccoo jotee yéen a ngi xëccoo yàlla dogal na moom la yàlla sédd yow yàlla séddu la nangul mooy ala farda maa yaqdil ilaahu bi mulki te toog nag fexe di wax lu rafet di wax lu baax di def lu baax ba xëccoo jotaat nga dem xëccoo ji waaye suñu borom jox na ko joxula rek tax lu ne nga wax ko fu mu gas rek nga suul lu mu def rek nga këpp ca suuf nangu woo dogalu yàlla subhanahu wa taala Chérif bu ñu bëggee mucc ci ki ñaan yàlla suñu bëggee mucc ci kiñaan bokk na ci li ñu ciy musal آيجي جيسو بروم سبحانه وتعالى وخ والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين موي ليك ليك نيت ديف لا منقر لا غا وان غا مير سي ساسا واي غا وان مير غي با دوكو واني واي بوكو نتي لي نوي موسل تي كنيان موي جيغلي gis mhm. nga nit bu fekkente ne lu la nit def nga jéggal ko jéggale nag laa wax mhm. boo jéggalee nit da nga koy fàtte mhm. waaye ni jéggal naa ko ba pare ñaari baat ñett yu wax nga ni dafa ñàkk jom waaye nangam ak nangam bër ki démb laa ko defal nangam jéggale woo da ngay boole faafu was wasfax jéggale jéllale am na loo xam ne ku la ko def doo ko fàtte waaye boo da nga koy fàtte fàttelu looloy waral jéggal gi doon dëkk wallahu yuhibbul muhsinin dëkk ci def lu rafet yaa ngi ak nit yàlla jox na ko yow yàlla suñu borom subhanahu wa taala mii xañe joxu la xamoo lu tax yàlla xañ la ndax asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum lu ko waral mooy wallahu yaalamu wa antum la taalamuuna suñu borom subhanahu wa taala nee na leeg nga bañ mbir fek mbir ma dafa gën ci yow motax ma tek la ko léeg-léeg nga bëgg mbir fek mbir ma am ko baxul ci yow motax ma xañ la ko nga ni suñu borom lu xew mu man dama xamul lu ngeen xamul xamna lépp te yéen xamulen dara tuti la leen xamal ndax wa أوتيتم من العلم إلا قليلا شريف بور واخ لا آية جوجو بن بور أمنا نيوني سا حسن ابن فاطمة لا دافا توك اي ديف بن انفيتاسيون أمنا تي سيرفيتور مي بن سورغام بو توك دي خول بور بي ديفنا دال بن بيتيز بور بي مير jaam bi xool buur bi kanam gi soppiku mu xam ni buur de mer na te buur bu meree nag moom yii tey àdduna tukki dina ko def lu metti buur bi xool jaam bi xool buur bi rek muuñ buur bi gën a ñàngal jaam bi ni ko wal kaazimiina al gayda buur bi ni ko kazamtu gayzi mooy jaam bi da ko ni yàlla nee na maa ngi tagg ñiy wann seen mer rek buur bi ni ko kazamtu gayzi wann naa sama mer jaam bi ne ko wala aafina ani naasi continué ne ci liggéeyam ah, mhm. ne ci service bi ba mu yàgg rek di dugal baat yooyu wala aafina ani naasi buur bi ni ko afawtu anki mhm. yàllaa ngi tagg ñiy jéggal nit ñi buur bi ni ko jéggal naa la ah jaam bi ni wala afawtu anka jéggal naa la bu dee góor bu dee jigéen afawtu anki jaam bi ni ko wallahu yuhibbul muhsinina yàllaa ngi tagg ndax yàlla nee na bëgg na ñuy rafetal buur bi ni ko ahsantu ilayka jaaltuka xurran li wajhillahi maa ngi rafetal jëm ci yow ndax bis ni ki tey def naa la nga doon as gor <laughs> xoolal yooyu ñooñu dañ daan jàng bu ñu déggaan aaya alquran ñu tari ko ci ñoom rek fa tabarakallahu dañuy jàng <laughs> waaye ñun nag suñu problème mooy alquran du ñu defar <laughs> dañuy dégg alquran waaye tey nga ñëw ci ab tafsir abdourahman jàngal ko alquran yeddu ko ñaan ko ngir mu maye nga ñëw taggal ko ay maamam moo ko ko gënal te maam ya nga koy taggal kat léeg-léeg day doon maam yoo xam ni da nga ko daan sa maam diw moo rey maam diw sa maam diw moo rey maam diw sa diw moo rey maam diw tafsir xuggaliko daal di génne daa baatareel la yow sa maam ji nga xamante ni moo rey ñoom maam diw ñoom maam diw defuñu ko dara mu rey leen mm. te yàlla nee na ku rey kenn rek safara nga jëm yow samaam ji ñuy wax rey na fukk ñu fukk yooyu moo leen rey kon sa ana anamu ah yàllaa xam fa mu nekk waaye wax nañu ni sa def na jëfi safara nga def ca sa alal mm-hmm. Chérif fa tabaarakallaahu bu ñu bëggee mucc nag ci ayu aji iñaan mm-hmm. bu ñu ci bëggee mucc mm. dañuy góorgóorlu bay nëbbatu yonent bi sallallaahu alayhi wa nee na بإنجاح الحوائج بالكتمان <laughs> فإن كل ذي نعمة محسود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يونت بنينا ay ñaan dafa am ndax day yàqale gis nga bu yàlla naan wa min charri xaasidin ida xasada ni rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qul auzu bi rabbil falaq ba mu jiix ni ko neel maa ngi muslu ci ayu aji iñaan bu iñaanee parce que iñaan dafay feeñ ci mbir léeg-léeg nit iñaane la xool la bët boo xam ni dina dugal ci yow feebar boo xamante ni dootul wér ba mukk wala mu yàqal la loo xamee ni dootoo mën a fexe ba mu jag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ngeen bëggee mucc ci loolu li leen ciy dimbali bokk na ci mooy ngeen di nëbbu Chérif nit ki du lu am rek wane ko déedéet nit ki du mu am rek wane ko yow yaa ngi par exemple yaa ngi am ci waxin benn tabax mhm. boo xamante ni sa kër la du dara sa kër la par exemple du daara du jumaa du école du hôpital parce que yooyu dañ ko war a publicité pour nit ñi xam fu mu ne mën faa dem mhm. mais lii sa kër la yaa cay dëkk mhm. yaa ngi koy tabax pareegul nga foto ko ay photo yu dul jeex photo biir ak biti publier ko ci Facebook bi bu ko defee ku ne gis ko ku ne wax ci da ngay daje ku iñaan boo moytul maara day taali moyen ya nga amoon pour àggale tabax ba moyen ya taxaw fekk ayu aji iñaan moo la dugg mhm. moo tax yonent bi salaay salaam ni li gën ci protéger sa bopp ci kiñaan du sangu saafara déedéet du takk gàllaaj déedéet du gas suul waaye li ci gën mooy ngeen di nëbbatu yonent bi nee na fa inna kulla di ni'matin mahsuud Chérif xanaa xamoo ni képp ku am xéewal am nañu la iñaane suñu borom subhanahu wa taala lii defal du yow rek yaay sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet Chérif du yow rek yaa fi jàng ci ñu yonent bi doon seen maam déedéet ta it nag rawoo ci macha allah doonte gënoo cee gàtt àll wayit rawoo ci am na ci sax ñu la raw mhm. waaye am na lu la yàlla defal loo xam ne am na ñoo xam ni suñu borom subhanahu wa taala dogal na yonent bi mooy seen maam jàng nañu li nga jàng wala jàng nañu lu ko ëpp waaye fa ñu lay dégloo ak fa ñu lay dégge ñoom dégloo wu ñu leen foofu dégge wu ñu leen foofu mhm. am na ca ñoo xam ne nag dina leen neex mais am na ci ñoo xam ne du leen neex mhm. moo tax yonent bi sallallahu ni دي نبتو نخ فإن كل ذي نعمة محصود كيف كو يالا دي فالخيول فتبارك الله أمنا نيو لأي كنياني يالا لأي الله مسل تي كيو أجي إنيان بوكونا تي لنيو من مسل تي إنيان موي التوكل على الله جل سبوب ريك وير كو تي يالا باية يالا سبوب جيس نيو رنت بي صلى الله عليه وسلم مونجي وقت حديث ني لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بتانا يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بوغين بوغين ديفو ني بيتي ديف ديل سين بوب دينك كو يالا كون يالا دينا لين ديفال ليمو ديفال بيتي ني يا رسول الله لو يالا ديفال بيتي موني بيتي دا فاي خيدو ام دارا génn tàggam daal ni yàlla maa ngi tàllal ay laafam naaw waaye fa muy naaw la muy sori sori fu pepp nekk ci suuf yàlla dina ko wan mhm. dina wàcc moom picc mi lekk ba suur lekk-lekk mu bàyyi doom ja ca tàgg ba sax dina denc dara ci ci ci gog bi bu ko defee yóbbul ka doom ja doom ja lekk kon nag li ëpp doole ci musal nit ki ci ayu aji iñaan bokk na ci shérif nga jël sa bopp dénk ko yàlla nga xam ne yàlla moo mën a musal ñëpp mhm. yàlla nañu yàlla musal léeg-léeg nag nga gis olof yi nga gis koo xam ne suba gu yeewoo ngir bëgg a mucc ci iñaan ak yooyu mhm. day jël potu ndox sotti ci buntu néegam génn léeg-léeg mu doon ay karo nga sotti ndox ci sa buntu néeg mm. mu tarxiis daanu daan ni làmmiñ rek a jàpp fekk làmmiñ jàpp la mm-hmm. yaa damm sa bopp ndax ay karo ku ca sotti am ndox mu tarxiis te boo ca ëppalee ba mel ni tafsir tarxiis daanu yomb na ca <laughs> yàlla yàlla musal